yaakaar naa échangé woon nañu lu bëri. c'est réalisé c'est réalisé. waaw c'est déjà fait c'est déjà fait avec euh, ñu ngi ko suivre ak euh, Malang de la Jolie ak le directeur des ministres bi ñu génnee ci suñu région. mais mais mais faut préciser que benn panneau provisoire lañ ko teg parce que ñoom ñun bu ñu leen waxee pour la solution dañuy il faut que ñu passé commande au niveau de la France ñu defaraat panneau mais il fallait qu'on trouve une solution. transitoire moo tax ñu am panneau bu ñu fa def bu bu visible en tout cas kuy jaar foofu nga xam ne fii mooy sotti Thiénaba dama xamul tamit ndax yeneen panneau yi ngeen doon réclamé ci biir Thiénaba ndax jot na am waaw boobu moom seen par loolu si c' un problème boo xam ne comité d' organisation évoqué woon na le jour de la rencontre pour ce qui concerne l'IGR saupoudrage des lieux de rassemblement le contrôle des denrées alimentaires à travers une prospection au niveau des boutiques trois jours avant, le contrôle des fosses techniques, des, des fosses septiques, le traitement du site de déversement des villages, 40 toilettes mobiles à installer deux jours avant, une dotation spéciale suffisante en produits pour Canada, doter les agents du service d'hygiène de tenue et assurer leur restauration. la mise en place d'une équipe permanente d'agents, la désinfection des sites d'hébergement. Pour le dernier point qui concerne l'élevage, donc euh, pour l'abattage, un accompagnement service, service élevage, le jour du gamin, voilà, voilà bien avant. Mais également, famille devrait demander l'abattage des chiens errants avec le renforcement du nombre d'agents durant la période du gamin. pour assurer le contrôle des abattages et assurer le prise en La construction d'un abattoir moderne à Thiénaba donc loolu mooy beneen point la boo xam ni pour comité d'organisation bi dafa ci dafa ci yokkoon donc madame le gouverneur euh, lii dañu il restait euh, ñaari secteur um, d'ailleurs la sécurité alimentaire ak le commerce pour la sécurité alimentaire comme d'habitude dañ leen di demander une dotation suffisante en riz et à temps augmenter le quota et l'élargir élargir la dotation aux autres membres de la famille de l'État pour le service du commerce assurer un approvisionnement correct du marché en oignons et pommes de terre mën nañ ci yokk sax euh, suivre euh, prix yi dans les premières nécessités politique yi xam ne état jël na ko wàññi prix yi ñu xool effectivité bi euh, sur le terrain donc madame le gouverneur loolu moo doon économie rapport introductif bi ñu bëggoon présenté sous réserve comme je l'ai dit de je vous remercie. merci beaucoup monsieur le préfet pour partage rapport introductif bi Cheikh Gningue président du la kàddu gi pour wootee. Euh, autorité supérieure yi nekk ci seen euh, ginnaaw euh, ministre de l' ak le ministre Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ah di nuyu itam nag préfet bu ko waxee léegi di nuyu sous départ. ñoo koy ànd sur le terrain itam du noppalu euh, ñoo koy ànd li euh, ñu yooyu ak service yi ak di ñuy jaw ki nga xamante ni moom suñu euh, porte parole imam Cheikh Seck dinañ bi mu ñëw ànd ko nag ak famille jarab bi yëpp seen chef de village sëriñ Alassane ñaar teg moo jox léegi ñaar waaye aussi di nuyu seen ci yow ah, di nuyu aussi Alpha Ba ak ñi nga xamante ni ñëpp moom lañu àndal euh, waa comité d' organisation bi ñu ngi leen di nuyu président du comité ñu ngi fi ñu ngi nuyu itam euh, daayira yi nga xamante ni jóge nañ fi ñëw yaa ngi gis fi am na ñu jóge ba ndax fi ne ñoom assisté ñeneen ñu jóge jóge Thiès ñeneen ñu jóge euh, daayira yu mag yi ñu ngi ci biir toog di nuyu itam nag ñi nga xam ne mooy dëkkandoo yi nekk dëkk ñoom itam di ay personnes ressources yu yu yu am ay xalaat eh, ñoom itam ñu leen di nuyu ñëpp ci déplacement yi ak eh, teewa teewaay bi. ah eh, gouverneur point un bi ñuy commencé mooy santé santé xam ni def nañu li wax nañu li ci war wax lépp xaj na. bu amee complément xaw ma nag léegi complément bi dañ koy jox léegi ki ko war a kii kii président commission bi wala dañuy nekk ba pare bu ñuy àddu waaye man fi ni ne man na maa def ramasser comme ni nga ko waxee su ma paree fii. damay jox président comité de santé bi am na yoo xamante ne damay jox seen président rek ndax yoruma ay complément c'est ça ku si ku si jot ne war complément complément waaw ci complément donc yenn point yi eh, dama koy dama koy bàyyi ak président commission yi fi nekk euh, ñu ñu def ci seen complément euh, d' donc santé euh, moom liñ ciy ñaan rek mooy dotation bi 13 millions waaye li ci des nag demandé nañ amal nañ ci lu bëri daaw ah des na nag ren eh, xaj na eh, fa ci des mooy ay lii ay table fii ni ñu ci ajouté mooy lu war a mat vingt table pour les ICP ak eh, les docteurs yi nga xam ne ñoo ñëw table table table ñoom bu ñu def consultation dañuy soxla ay table taable de consultation donc loolu on aurait ñu mën a am lu mat vingt tables de consultation supplémentaires euh, yu yu ICP yi mën a liggéeyee ndax demandé nañ vingt ICP may ñoom ñu ñëw du am fu ñu mën a toog euh, chirurgiens yi dafa am ñu fu ñu mën a toog donc foofu mën nañ fi ajouté ay tables de consultation loolu rek laay am li ci des bu ma dikkee euh, président comité de santé bi dina ci wax bon pour eaux et forêt la même chose moom itam amul ay observation euh, d' autant plus que technicien eaux et forêt yi accepté woon nañu euh, ci euh, CDD bi ak ci CRD CRD nii dinañu financé dinañu jox autorisation yu demandé waaw autorisation yooyu daaw def nañ ko pare daa war a jaar ci xalif général bi mu mu mu visé ko disons mu soog a ñëw ci ñoom moom donc côté numéro 3 bi di eaux yi forêt itam amul kii électricité waaw électricité moom am na ay ay ay ay li euh, ciy demandé ay observation euh, fii ñu ngi def extension du réseau de Thiénaba sur 30 kilomètres extension boobu daal soxla nañ ko trop muy doon augmentation des lignes des des des connexions yoo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo tugg si euh, bëgg ñuy yokkal leen seen courant bëgg ñu indi courant ci ñoom ñu def extension boobu. Euh, bee passé amoon nañ accord ci extension Thiénaba Seck extension Thiénaba Gare ak extension Xay waaye nag am na ay dëkk yoo xamante ni ñu ngi ñu ngi sës ci dëkk yooyu bëgg nañ extension boobu mën a dem ba Jawaare mën a dem ba euh, Touba Gueye euh, ak Kër Maïssa yi nga xamante ni mooy juste yi nekk ak même post bi accepté loolu na ñi itam poste de courant ba post de courant bi déposé nañu ko. Euh, fi mu ne nii dikk nañ seet poste de courant boobu placement bi placement bi ñu ko di ànd ak euh, monsieur le maire ànd. Euh, frère yi toog yëpp la présenté dem délégation bu jóge nañu ba daal ci fédération daal parce mooy secrétaire particulier daal kii fédération daal ànd ak ak ànd bi ñu ko defoon représentant xam na gàmm moom toujours bu ñu koy waajal soxna si daal ñëw fii ñun nañ yow waxtaanee gàmm nekkoon nañ tamit document ci kër sous-préfet waxtaan ko ak sous ñoo loolu la doon rencontré léegi dama gisoon ni sax président Abdou Diouf ñun toujours bu ñu déparé suñu réunion rek da ci am secteur yoo xam ne dañ ciy daal di am satisfaction yooyu daanaka jërë woon baaxul lu mel ni gendarmerie lu mel ni sapeur pompier lu mel ni santé lu mel ni électricité yooyu moom dañ ci defoon dal na suñu xel mais xam boo juddoo gàmm ak ni cara ba toll ak ni dëkk ba di yokku ak ni muy màggee man li ñuy wax ni boo yaakaar ni muy yokk da ngay yokk si ñuy ñaan si ak muy dëkk boo xam ne nii toujours ñu ngi am problème buy gën a mag mooy ndox daanaka ñun suñu suñu moo mën ñu koo tënk ci ndox ak ak ak ak waa ONAS parce que foofu moom toujours dañ ciy am jafe-jafe daanaka satisfaction bi ci am nañ dem ba au dernier moment ci ministère de l'intérieur dañu doon am satisfaction ndax moom problème bi ñu ci am cette année yi ñu joxoon daal dëgg dëgg ñu nee ba intérieur le ministère bi mobilisé waa waa waa Eaux ak waa sapeur pompier ak camions yi boppam dolli na ko mais itam suñu la suñu waxtaan ak ñoom maanaam quatre heures bi ñoom dañuy wàcc ñibbi il faut ñu am camion yu permanent yu mën yu mën noo gunge ba vingt et une heures sax parce que guddi gi yëpp dañoo su su ñu mujj mobiliser waa sapeurs-pompiers yi ñu ngi il faut hydraulique tam comme forage bi agul daaw agul ren il faut ñu yokk nombre de camions yi ba pare il faut ñu am camions yu permanent wala yu gën ne ñun ba vingt et une heures sinon sinon duñu am ndox euh, waa ONAS tam suñu dernière réunion ak ak préfet ñoom ba nga ni préciser wu ñu ñaata camion la ñuy jox ca la loolu tam suñu bopp ba nga ni si te loolu dañ cee war a jiw ndax dëkk boo fay population ba am yokk daa ñuy am ay huit camion ay cinq camion tam jafe-jafe boobu day ko kon daanaka kon président am nañu mais mën seet problème yi nga xam point yi nga xam mooy problème principal yi nga xam ne nii bëgg nañ amaguñ ko satisfaction toujours am jafe-jafe ñu waxtaane yooyu. waaw ah, yéen itam ngeen gën ñoo dimbali ci yooyu itam poussé ci chef de service yi ba ñu gën ñu jàppale ba loo jox ci dal suñu xel boobu ñu demee sëriñ bi ñu yónni ñu mën ko wax dara xelam. Hmm. l'ensemble njabootu ma am man daal itam ñu leen wax dal suñu xel. mais ñoom dañuy seetaan bés bi ba léegi dañuy wax ba léegi taxawu leen sonn seen réunion kii waxu leen kii waxu leen lu wér bëggoon nañu daal ñu lañ cee am am ñu ko kon ko teel a wuti ndax daa mu ñëw ah, bu soobee yàlla topp sa instruction ci du ma def répétition incha allah bi ma ciy njëkkee mooy gàmmu ren sëriñ bi dafay def at mu jot. mu instruire comité scientifique bi ci génne leen thème boo xam ni gàmm gépp moom ngeen ci waxtaan ak njaboot gi bu ten bi bu ren bi nga xam ne nag comité bi tànn na ko bu proposé ko sëriñ bi mu validé ko jaarale ko ci porte parole mu ñëw ci coordinateur moo di éducation paix sociale et prospérité les enseignements de l'islam et l'exemple de Thiénaba maanaam jàngal xale yi yar leen loolu nan la mën a indee jàmmi askan wi ak soqaliku loolu nan la ko diine jàngalee loolu mu defe naa ni ku jeex di nga ko gis waaye di ko diine jàngalee ba pare nag ana nan la ko Thiénaba fësale te di ci dox Thiénaba moom ku ko xam-xam ni luy blessé diine ma ngay jéem a góorlu loola du fa am beneen bi sama deuxième point gouverneur mooy ñaanoon naa ko ci CDD bi di gërëmaat bu baax nag préfet keroog taxawaay bi rafet na trop ànd ko ak euh, ñi mu ko àndal ak service mooy communication bi war a jógee ci service yi jëm ci gàmmu maa ngi ñaanaat service yëpp kenn ku nekk sa cellule de communication soit nañ ñu invité wala bokk nañ ñu approché ndax daf ci am message yoo xam ne bu teel teelu la egsi ci taalibi bi rek bis ba seen liggéey mën naa gën a jafe xam nga toog ba gàmmu ca na ba ubbi nga naan cag-cag yi du ngeen jaar fii charrette yi du ngeen jaar fii moto yi du ngeen jaar fi buñ ko teeloon a génne ñu wax ko nit ñi communiquer ak ñoom ci plan de circulation bu leer yaakaar naa buñ ci eggee taalibi canot moom dëgërul bopp ndigal doomu lay déglu te bu ko déggee dana ko jëfe kon loolu tam maa ngi koy sàkkuwaat bu baax a baax ci chef service <coughs> gouverneur troisième point mi ngi jëm ci AGEROUTE bu dul woon sama sëriñ si toog gouverneur Azurut moom dama koy tàcc ndax dama bokkoon ci ñi leen gënal la jël sànni leen xeer fu ne lu ne wax naa leen ko lu ne muy fii ci sa bureau bi kanamu ministre ba dama wax a wax waaye fi mu ne dafa mel nag wax dëgg yàlla ñi ngi dégg suñuy wax ni ko coordonnateur waxee waaye début de solution la wax kon mooy des na lu bari malheureusement nag su ma leen doon noté fi mu ne 10 sur 100 lay note wax dëgg yàlla pour franc avec mois loolu lay noté hmm. ndax autoroute aller la ak retour maanaam taalibe yi Thiénaba dëkkuñu Dakar kese dëkk nañ nii te autoroute bi jóge na nii ñëw si Thiénaba foofu tam nañ ñu ko bàyyi xel wax ñu ni ku jëm Thiénaba fii ngay jaar wàcce xombal ba baax na de am na alhamdulilah tàccuwaat na mu des bi ma waxoon mooy bu ñu wàccee Thiénaba fi ne nii bu ñu wàccee Thiénaba dinañ daw ba romb Thiénaba te duñ jàdd te c'est malheureux ba ca kaw baax na waaye nag ku wàcc ci suuf war ngaa xam fooram bay dugg Thiénaba amul tableau d'entrée amul loolu nag kon Ageroute euh, maa ngi retiré benn tàcc boobu moom góorgóorlu ci bala ñoo gàmm yaakaar naa ni jafewul même bu dee tableau provisoire ni ko euh, euh, suñu kilifa gi waxee loolu nañ ñu ko defal ba wane ni Thiénaba fii ngay jàdde dugg fi bi ci des mooy ay ralentisseur ay ralentisseur accident yu bari na ci Sénégal trop weer yu ñu génn rek wax dëgg yàlla lu lu jege téeméeri bakkan faat na yal yàlla yërëm leen xaw ma lu ko def nag matériel nit lu waaye lu ci nekk ñun lañ ca mën a xam mooy dinañ jaar ci tali mu am pax te gouverneur xam nga sunu service yi macha allah ñoom dañ leen di jox ay 4x4 xam nga 4 x buy daw ci tali tey dawee vitesse moom faalewul ni de pour moom da koy maasal bu ci pono bi duggee sax du koy mais ñun ñi nga xam ne nag la ay kalandoo la ñuy dugg ak yooyu fu nid de poule am dañ koy xam boo ci ne cëbëj rek ñu xam te loolu mën naa dévier oto bi indi problème précisément diggante kër Ibra Ñaan nga xam boo génnee Thiénaba mooy deuxième village wala troisième bi nga ci def pour jëm Thiès avant ngay egsi ci autoroute bi foofu yëpp man waxuma leen nid de poule waaye ay case de poule la moom waaw foo xam ne ginaar yu bari mën nañ faa dëkk te kenn leen gis ci kaw tali bi nag loolu tam agéroute maa ngi la koy ngeen ko sax waaye ñu ko ñoom Euh, ralentisseur yi ca maa ngi koy waxaat nawet la ñu nekk oto glissé yomb na ralentisseur mooy tax mu daw ndànk kooku moom maa ngi koy ñaan dugg ca Thiénaba ak génn Thiénaba yëpp surtout nag ci entrée yi ak au niveau du lycée de de Thiénaba beneen bi Sénélec li ma ciy ñaan man en tant que communication mooy ba tey rek agence commerciale xam nga taalibe xelam day dal mu kontaan lool ci ñëw ci dëkku sëriñam bi muy gàmmu xam ni fii kat waa Sénélec lii la leen defal pour buñ ko soxlaa waxoon naa ni Serigne Thiénaba fi mu ne nii bu amee facture bu mu bëgg a fay yónni koy doomam dañuy dem xombal fay ko wala kees dëgg yàlla nag loolu ëpp na martaba Serigne Thiénaba kon Sénélec ñu ngi koy ñaanaat bu baax a baax a baax su fekkee mairie moo war a joxe place bi na ko joxe bu ko Sénélec mënagul a tabax ndax budget mu amul nun taalibe yu ñu cotiser abal Sénélec mu tabax bu pare ñu delloo mais soxla soxla nañ ko trop lu urgent la tamit Euh, Sonatel xaw ma ñu ngi fem déet waaye li ma wax son Senelec laa koy wax mooy agence boobu moom bëgg nañ ko trop muy agence commerciale bu Sonatel euh, préfet am na lu mu wax ci li ñu soxla ci ñoom mais fi may insister après loolu mooy nii may waxe nii quartier yu bees yi ci ba yëpp depuis cinq ans amu ci benn bu am extension Senelec euh, Sonatel lan lay engendré mooy kër yu bees yooyu daanaka moodu moodu yi ñoo ko jënd te ñu ci bari duñ fekk ci gàmmu kon fa ngay nekk ca bitim réew li ngay yaakaar mooy ñu defal la direct nga seetaan gàmmu bu fekkee li nag bu ñuy def direct ngay seetaan gàmmu léeg-léeg nga woo sa waa kër leen maa ngi seetaan moom it mu ni maa ngi nii toog jàkkaarloo direct bi ca këram loolu dafa neex na ngeen ma baal humour bi nag mais loolu dafa neex mooy rek kon seen kër yooyu am na wifi kër yooyu nag amul te nii may wax ak yéen nii des dizaines de demandes yoo xam ne lool rek lañ soxla ma nga fa di nelaw mais liñ leen di wax gouverneur mooy euh, poto yi dend ak yéen amul boîte bi daa fees yéen amul extension waxuma la boîte mais amuñu sox poto far foofu kon maa ngi ci ko ñaan euh, euh, Sonatel nañu ci nañu ci dimbali bu baax a baax beneen bi mooy euh, fibre optique bi boobu moom waxe ADSL sax bu ma ko kenn waxati man jéggal naa leen ko ndax wax dëgg yàlla champion ngeen ci mais fibre optique bi nous sommes à Thiès Thiès ak Thiénaba douze kilomètres la dañu cee lëjëla lëjëla lëjël xanaa da ngeen koo mënta am ma ne ñun de xamuñu liñ man mooy wax technicien luñ ñu tontu ñu jël mais amaguñ ci réponse bu leer fibre optique lañ bëgg Thiénaba pour service yi ak domestique yi ndax liggéey yu bëree bëree ngi tardé ndax connexion bu yeex te wax dëgg yàlla fi àdduna bi toll moom connexion bu gaaw moom la ñëpp soxla euh, beneen bi tam di li nga xam ni mooy wàllu euh, presse bi gouverneur maa ngi daaneel incha allah presse bi ma waxaat ni accréditation yi maa ngi ciy insisté waat àdduna bi dafa toj Serigne Thiénaba li nga xam ne moom la ñu digal ca sant ñu ko mooy képp kuy ñëw di wax ci gàmmu Canaba wala nga koy waxal na doon ku ngeen xam ndax lépp lu ñu fi waxee sama pénc mi kat man la engagé man Serigne Canaba kon ñun nag en tant que commission li ñuy man mooy segg presse boobu wax dëgg yàlla nous sommes contre personne waaye bëgguñu nag ku ñëw rek gàddu sa téléphone gàddu sa caméra gàddu sa micro am waxal bu ñu waxee ñu ni Canaba nee nañ nangam non kooku moom sëriñ bi daf ci insisté ñu xar suñ tànk tubé kon ren ku amul accréditation moom doo accéder ci liggéeyu gàmmu loolu moom maa ngi koy wax bu leer te bëgg naa ñu ñu ñu bàyyi ci xel euh, trop euh, bi ci des gouverneur moo di coordonnateur wax na ko léegi investissement humain bi le deux la mais ce sera suivi de la déclaration du xalif te loolu tam lu am solo la pour xalifa bi wax ak adduna bi ci fan la Thiénaba toll ci gàmm gi ak nan la ñu bëggee ñu ñu ñëwee ci loolu tam nañ ñu ko bàyyil xel bu baax a baax euh, avant dernier point gouverneur mooy plan d'action bi nga xam ni presse bi ci lañ war a liggéey ndax ma répété ko Thiénaba bëgguñu presse liggéey nu ko neex ci biir Thiénaba plan d'action boobu mu ngi ci loxo Babacar Ndaw mi nga xam ni moom ngeen àndal yéen waa Thiès ah, waa Thiénaba ñoom déjà ñu ngi ciy liggéey dernier point gouverneur mooy la RTS jàmbaar lañ lool ñu ngi ñuy gunge euh, plateau waajal gàmm yi comme ni koy télévision yi defee ñi ngi koy defee mais biñ mën a am biñ mën a gula am gouverneur te mu jaaxal ñu mooy direct cérémonie officielle bu bu gàmmu Thiénaba loolu moom jaaxal nañ ci RTS lool lool lool ñu ngi fi jaar nag man bokk en tant que membre de la commission communication di féliciter le nouveau directeur général Pape Alé Niang waaye di yóbbante ñi ko fi toogal ni ko xalifa bi mi ngi koy ñaanal dina ko yónnee délégation fan yi sax bu soobee yàlla waaye cérémonie gàmmu Thiénaba nga xam ni ay baax baax ñoo fay génne ay ñaan yu tedd di fa génne mais ay engagement yu yóbbaale jullit ñi di fa génne bu sañoon taalibe yi fu ñu ne ak sax ku dul taalibe bi Thiénaba yëgandoo ko ñëpp benn point rek waroon naa jar ñu def lool tàkkusaanu gàmmu Thiénaba sëriñ Thiénaba génn eggale téere bi nga xam ni moom la maamam tànnoon di ko gàmmoo ba mu ca pare mu jóg taxaw moom sëriñ Thiénaba taalibe yëpp jóg taxaw ak mu muxaddam yi sëriñ Thiénaba ni isa diinu lam yakmul fala kaanati dunia mooy yàlla man maa ngi jël engagement man ak sama njaboot gi ni bu diine naree manqué yàlla na fi àdduna bi jóge kon loolu war nañoo gëstu lu tax Thiénaba di ko wax nit nag lu mu xamul du ko gëstu kon maa ngi ñaan direct boobu mu am kon boobu moo nekkoon dernier point bi bi koy tëj nag pour ma delloo kàddu gi Euh, xam naa kaf lay doon directeur nga baal ma gouverneur mooy dañoo seetlu daaw jéeg militaires yi dañoo ñëwoon indi boulangerie Thiénaba di lakk mburu rek di maye loolu nag amatuñ ko te bokk na ci gàmm gu neex ak communication bu jàll ñibbi ni Thiénaba gàmm ga neex na ndax mburu sax jënduñu ko fa kon bu ñu militaires yi mënee lakkalaat mburu may ñu loolu ñu jël maa ngi jégalu ñëpp xam naa kii dafa bañ a waxaat mooy waa comité santé bi nee nañ centre de santé daal bëgg nañ ko Canaba te lu ñor la te mi ngi ci budget 2023 bu état bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ampliation wane ni ñoom en tout cas secrétariat jot nañ ko waroon nañ ko mën a ëndaale sax waaye dans la précipitation fañ ko waroon jële ji ci président dafa tàkk te man maa waroon tax denc xëy na document boobu ah ñu bëggoon na ngeen jàpp su laaj yi ñu envoyé leen benn exemplaire ci loolu bu boobaa daañ def tous les moyens pour envoyer leen benn ngeen mën ñu jàppale bu ñëwee ba cëmban ñu mën am ay facilité pour mën a continuer dem Thiénaba loolu daal mooy suñu principale doléance beneen bi nag mooy wax nañ ci résumé ci document bi eau électricité tout ça ñun am nañu ay besoin parce que booy gan jóge fu sore ay deux cent cinquante deux cent trente kilomètres ñëw ah wax dëggul yàlla li ngaa xam mooy prise en charge bi ñu ñoo koy jëlal suñu bopp sono lu ñu suñu ay sëriñ prise en charge ñoo koy jëlal suñu bopp teer nañ ko wax coordinateur mais li ñu bëgg ñu appuyer ñu rek mooy nawet nañu ne ñu jox ay bâche fermée ak ay bâche ouverte période de canicule la dafay tàng day laaj des fois ñu soxla fëyaxlu suy taw ñu dugg ci bâche fermée yi beneen bi mooy wax nañ ko ramassé nañ ko yëpp ci document bi leer nañ euh, ñu alimenté ñu en eau suffisamment ñu approvisionné en eau suffisamment ñu am ndox mu doy ñetti sit lañu am muy kër gu mag euh, taaleen ak école franco arabe franco ba école franco bi ñaare dafay am ay ñax mu laaj ñu bay ko foofu également euh, des fois dañ koy bay du àgg ñu ñooy ñëw si meeku futteeku ña fay dal di mujjee eggale liggéey bi loolu buñ ci mën a jàppale coordinateur dana baax trop ñëw désinfecté que saupoudré que environ les environs immédiats dana am solo trop ak taal ñetti si yooyu daal la ñu am loolu la ñuy demande ndox mu doy Euh, bâche euh, électrification ñu électrifié ak point d'eau point d'eau yi des fois bu fekkente ne mën ñu yokk borne fontaine yi bu ñu amee comme ni ngeen ko résumé fii rek ay camion citerne rek mën na régler suñu problème ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di am mbégte mu rëy rëy rëy daaw jéeg nag euh, na tane daaw indi xamante ni yu xaw a tane sax ñu ciy bàyyi la Euh, beneen bi ci des mooy euh, ci côté ministère de l'intérieur euh, bâche yi nga xam ne mooy ay semi fermé lay doon yi nga xam ne ci la autorité yi ak xalif général di toog ndax kenn ku nekk xam na ni su fekkee soit xel comme bâche la wala Sénégal bâche genre bâche yi demee noonu suñ ko bâchul li ko war a bâché bu tawee dafay senn ci biir kilifa yi day day kii mais suñu problème li nga xam moo gën a nekk suñ problème mooy bâche bi à chaque fois day yéex a ñëw dañuy bàyyi daañu bañ suba la gàmm wala ginnaaw suba la gàmm bi ñëw loolu mënoo koo bâche lu lu lu ëpp ñaar ba ñett ba ñeenti fan léeg-léeg président de la république dafiy ñëw wala autorité fi ñëw da ngay obligé arrêté équipe bi nga xam ne ñoom ñooy baax ba kilifa yooyu mën a dem pour nga mën a continuer sa liggéey kon li ñuy ñaan ministère de l'intérieur mooy que bâche yooyu su manee ñëw une semaine avant euh, dana ñu mën a dimbali ensuite ñu dolli ñu tamit ay ventilateurs yoo xamante ni ci période tàngaay lañ nekk pour cérémonie officielle ñu mën ko ñu mën ko mën ko faa def beneen bi ci des 2016 euh, moom lañ wax mais bu ñu ci mënee dolli waatal tamit 200 euh, euh, chaises yoo xam ne chaise VIP la parce que DMTA chaises yu ñuy jox à chaque fois chaise bi euh, plastique lay doon bu ñu mënee dolli 200 chaises yoo xamante ne VIP lay doon pour cérémonie officielle ak benn oto boo xam ne joxoon nañu ko daw oto boo xamante peut être comité organisation bi ci la ñuy circuler durant gàmmu gi yëpp intérieur joxoon nañu beneen bi ñu def si côté hydraulique bâche a eau yi nga xam moom la ñu doon jox daaw dama remarqué ni bâche yi ñu jox yëpp dafa bët yëpp dafa bënn da ngay ñëw placé ko bu ñëwee pour war ko duy doo ko mën a utiliser beneen bi ci des it mooy heure bi muy ñëw dafay nekk loo xamante ni doo ko mën a delloowaat parce que ci ci gàmm gi lay doon kon loolu tam ñu bàyyi xel que balaa ñu koy indi ñu vérifier ko ba xam bâche yi bënn na wala bënnul loolu laa ci doon ci côté gendarmerie euh, secrétaire général fédération Ndar wax na ko sànq euh, dafa fekkoon euh, am ñoo xamante ci ñoom génn nañ escorte bi wax nañ ko waxaat ko dafay nekk euh, fil boo xam ne fil bu gudd la tey boo jógee ndar kenn ku nekk xam ne da ngay traversé Tiwaawoon te Tiwaawoon day gàmm foofu pour nga am accès pour ñëw loolu tam problème lay lay doon kon escorte boobu ñoom bind nañ yéegal ko ci kaw jox naa ko ko coordinateur yaakaar naa dina ko jàllale fi nga xam fi la ko war a jàllale beneen bi ci des am nañ ay pèlerins yoo xam dañuy jógee Gambie ñi Mauritanie ñi Mali ci côté duwaan loolu tamit ñu dimbali ñu ci parce que daayira yi ñu ngi koy ñu ngi koy réclamer à chaque fois bu ñuy ñëw ci yoon bi dañuy am ay problème yooyu parce que seen seritiers euh, yi nga xam dañ koy jëndaale indi ko uniquement pour gàmm gi dañ ciy am ay ay ay ay jafe-jafe ci côté gendarmerie ba tey euh, fédération département Gossas ñoom wax nañ ni à chaque fois bu ñuy gàmm si xëy na peut-être balaa ñuy agsi Thiénaba diggante Thiénaba ak Gossas rek danañ am ay problème ci ci checkpoint yi nga xam ne ñoom ñoo fiy nekk loolu it gendarmerie bàyyi ci xel naka lañ leen mën a dimbalee ba nga xamante ni dinañ mën a agsi te am problème fi may mujjee daal mooy remercier remercier SONAGED ak gendarmerie parce que gendarmerie dañuy liggéey ci cérémonie officielle bi bu ñu ñëwee du ñu la du xëccoo ak yow wane ni peut-être man euh, maa ngi ak samay galon wala da dañuy topp ci comité d'organisation bi di leen déglu kon loolu dafay baax tamit ñu wax ko kilifa yi remercier leen wax ni leen ñoom tamit kontaan nañ ci ñoom SONAGED moom amuñu fayam amuñu fayam mais mention spéciale à Ibrahima Mbaye Diop bi nga xam ne moom moo leen ko représenté SONAGED ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal lu ñu mën de yaa nañ ko mën déwén salaamaaleykum wa demoon nañu euh, seeti waa comment encore ok Promoville waa Promoville def nañu correspondance dem ci ñoom bi ñu ñëwee aussi am nañu réponse ak waa Promoville parce que ñëw nañ fa à ba ñëw nañu ba dem à ba Seck am ay routes yu ñu natt euh, ñëw ba Gare aussi am ay routes yu ñu natt mais ça fait deux ans de cela bi ñu ko defeek léegi ak léegi ba ñu nattee ba léegi dellusiwaatuñu amaatuñu leneen jëm nañ leen woo mais ñoom aussi li ñu wax ni dafa am loo xamante ni moom la ñuy xaar pour ñëw boobu ba léegi aussi amaatuñ ci réponse loolu ñuy wax aussi gouverneur suñ ci mu gën a mënee jàppale aussi pour waa Promoville euh, ñu gën leen a ba xam euh, projet boobu fu mu toll ndax comme ñëwoon nañu ba natt ba pare donc lu ñu mébatoon la pour def ko donc je crois que ni peut-être bu ñu leen relancer euh, yàlla mën na def incha allah ñu ñu am ci kii euh, may wax aussi ci waa UCG ak Promoged comme ni leen ñëpp remercier di leen remercier encore une fois mais di leen wax ni Thiénaba aussi dafa dafa yaatu fi mu toll nii te actuellement benn tasseuse bi nga xamante ni moom la ñu yore euh, defe naa ni c'est pas des mais dafa xaw a vraiment attanul mbalitu Thiénaba donc suñu mënoon dolli beneen benn tasseuse Euh, ak un personnel pour que ñu mën a jàppale mbalit mi ñu mën ko di ko def à temps loolu aussi dina doon loo xamante ni euh, lu am solo lay doon incha allah waaw ok quoi que euh, wàllu set setal bi aussi comme niñ ko defee ñu ngi koy defee chaque année prévoir nañu aussi pour mobiliser les agents du FERA pour que aussi ñu ñëw jàppale appuyer comité d'organisation bi comme niñ ko daan defee toujours pour que ñu mën ko def euh, lii ñu wax aussi lii commandant wax léegi aussi ci affaire euh, point de vente yi pour ñu mën ko régulariser là aussi dinañ ànd ak euh, comité d'organisation bi fu ñu war a jël arrêté wala loo xamante ni war nañ ci jàpp incha allah ñu jàpp ci ba lépp tegu ci yoon pour que ñu mën a am loo xamante ni lu mucc ayib la defe naa ni daal ci loolu mooy yi nga xamante ni interpellé woon nañ ñi ci ci loolu Euh, te incha allah rabbi euh, pare nañu aussi pour euh, jàpp ci ci lépp loo xamante ne nañ lañ ko daan defee pour que mu gën a jëm kanam ñu gën ko yokk incha allah rabbi pour loolu lépp mën a mën a mën a mën a tegu ci yoon incha allah waaw ah, def naa ci loolu daal yooyu mi nga xamante ni mooy yi ma noté woon ci li nga xamante ni moom la ñu interpellé woon. doomu aadama yi en tout cas dinaa expression des besoins ngi nii dinaa dem teg ko ci taabal bi. ne ko nag ah loo ci man jàpp ci ndax lii kat ku ci jàpp jàppal nga liggéeyal nga sa bopp liggéeyal nga yàlla liggéeyal nga yonent bi liggéeyal nga l'islam donc loolu daal madame le gouverneur incha allah li ma war daal en tant que représentant du président mooy rendre ko compte fidèlement incha allah je le ferai di ñaan yàlla yàlla may ñu fekke ko ci jàmm ak salaam li ngeen ci yóotu ak li ngeen ci bëgg yëpp yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala Seydina Muhammadin wa ala alihi yaakaar naa ne li ci ëpp yëpp euh, chef de service yi fi toog montré nañ seen disponibilité waaye tamit jël ay engagement defe ko ñi nga xam ne noonu lañ ko bëggee mu jëm ci wàllu wér-gu-yaram jëm ci di jëm ci euh, euh, cet ak cell gi jëm ci li nga xamante ne nii dafa jëm ci sécurité bi sécurité nit ñi nga xam ne dañuy ñëw ak gendarmerie bi nga xam ne dina jalonné si yoon yi waaye tamit dem ci sécurité même si biir canab bu ñu war ko gën a mën a renforcer ba nga xamante ne nii nit dafa nekk dinañ mën a dal si bismillahi rahmaani rahim waaye ñibbi tamit si alhamdulilahi rabil alamin li jëm ci tamit li nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy accompagner ci gàmm gi ñu li muy waa Sénélec di di dina doon si terme yu doy waaye tamit mu doon citerne yu nga xamante ne que ni dinañ mën a répondre aux besoins hydro besoins yi nga xamante ne nii ña fay ñëw dinañ am ndox loolu moo tax rek dama bëggoon na seen nga xoolal ma ak euh, ak ndooy vraiment ngeen évaluer au-delà ñoom des quarante citernes qu'ils ont demander le besoin réel en eau de Thiénaba pour la l'année dernière bu ñu xoolee la fa ñëwoon ak lañ fa teg ci citerne est-ce que ces citernes là ont été tous utilisées et quel le besoin à partir de là ñun dinañ mën a quantifier réellement quel est le besoin exprimé au-delà de 40 citernes yi nga xamante ne ni moom la comité d'organisation bi demandé li jëmi tamit ci waa ONAS dinañ fexe ba li ñu am partagé nañ ko ak comité d'organisation bi dinañ fexe yi tamit li nga xam ne moom ngeen exprimé muy 20 camions yi ñu fexe ba ñu ko war a yëg yëg ko à temps ba nga xamante ne nii euh, besoin boobu dinañ xool nañ lañ ci mën a nan lañ ci mën a taxawee éclairage bi tamit yaakaar naa assurance yi Senelec joxe euh, am na solo on n'a pas aujourd'hui de qualité dans l'électricité fournie à, à, à Tianaba. N'empêche, un poste est là-bas et l'extension du réseau aussi sera effective. te yaakaar naa ne poste boobu dinañ ko alimenter après le Magal donc bien avant le le le le Gamou loolu daal mooy de manière groupée en tout cas yi nga xamante ne ni mënoon nañ ci teg euh, baaraam wane muy wane engagement yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko waaye tamit ma leen di ñaaxaat rek képp ku fi toog li nga jël muy en terme d'engagement nañu fexe ba. ni nga waxee ne noonu nga koy defee ñu defee ni ko ba nga xamante ne nii képp ku war a ñëw jour ba nga war a ñëw bu jour boobaa ñu mën a tàmbali liggéey bi ba nga xam ne balaa euh, gan di ñëw dinañ fexe dinañ dina fekk liggéey bi pare mu doon loo xamante ne nii dina dina dina yemb may euh, exhorté waat rek comité d'organisation bi ñu jàppale ñu ci coordination bi parce que dafay xaw a jafe ci chef de service mu am fukki interlocuteur buñ jëlee chef de service bu ne tegal ko un point focal daf koy yombalal bu liggéeyam loolu daal bu ngeen ñu ci jàppale woon dinañu gën a mën a yombal suñu suñ suñu liggéey pour chaque service pour chaque secteur ngeen jox ko un point focal nga xam ne du ku nekk moom mooy el woote ku nekk di demander ay intervention waaye tamit euh, ñuy euh, ñuy euh, ñaanaat rek porte parole mu yeggal suñu nuyoo ak nuyoo gouverneur de la région de Thiès monsieur Oumar Mamadou Baldé ci xalif général Assane Assane Seck ko defee mu gën a ñu taxawalaat ci njaboot ji rek gën leen gën ñu ñaaxalaat ndax yaakaar naa ne ki yor euh, transport terrestre jóge na fi sànq mois wu gàmmu ak màggal day nekk ay moment de fort déplacement bu déplacement yi bëree rek yenn jikko yi dugg tali yi day am wax dëgg neex yàlla ay gàllankoor yuñ ciy am bu baax a baax donc bu ñu sensibilisation bi équipe communication bi xam nañ liggéey bu rafet la def ca Thiénaba ñu gën ñu jàppale gën ñu ñaaxalaat taalibe yi nga xam ne dañuy tegu ci dañuy tegu ci ci tali yi ñu tegu ci ak yar ak teggin waaye tamit respect li nga xam ne moom mooy code de la route buñ ne bu ñu dawal guddi ñu fexe bañ nañ dawal bëccëg bu ñu ne bu ñu surchargé ñu fexe ba buñ jël ay ban di ko dugal ci biir oto yi nit lu mën di wër wër wër alal bakkan moom kenn mënu ko yemale ak alal loolu daal dañ ci dañ dañuy dekk ay un point d'attention particulière boo xam ne suñu sañoon ci sensibilisation yi ngeen jàppale ñu si bu baax a baax a baax xam nañ ne le DRS euh, avec l'hivernage et les maladies qu'on a dina leen tax dina jàpp ak yéen liggéey ci sensibilisation bi ba nga xamante ne ni vraiment bu ñu jógee mukk ci gàmmo yi ëllëg ñu naan épidémie bi am na fi wala feebar bi kat gën na fee wasaaroo li ñuy ñaan daal mooy euh, di ko ñaan xalif bi mooy mu gën a mu gën ñu taxaw ci ñaan yi ba nga xamante ne ni dinañ gàmm si bismillahi rahmaani rahim ñibbi wàcc alhamdulilahi rabil alamin euh, monsieur le porte parole imam loolu laa bëggoon a tëje euh, di la jox kàddu gi rek pour nga defal ñu ñaan ba nga xamante ne liggéey bi nga xamante ne ni am nañ yéene def ko suñu borom may ñu kàttan guñ mën a mottalee suñu yéene jërëjëf waa jiyeesal yeesal suñu nuyoo ak cantuk sëriñ bi ci préfet préfet sëriñ bi mu ngi lay nuyu mi ngi lay ziyaare ci liggéey bu rafet bi noonu lay macha allah nuyoo di sant tamit su préfet macha allah mi nga xamante ni mooy njabootam gi mu dëkkal canaba nga xam liggéey yi foofu la commencé suñu boroom nag dafa am lu muy wax mooy mbir boo ko bëggee da ngay sabablu sabab lu munta ñàkk suma at atbaa sababan boo sabab la ba pare da ngay dox jëm ca moo waral suñu jotaay yi wax dëgg yàlla ñi ko seqal ñu jox ko yitte yu rëy a ñu ngi leen di sant ñaan yàlla yàlla nekk fajug aajo ci yéen ñëpp li ci des nit ki bu taxawee liggéey na yaakaar yàlla hmm. ndax yàlla mooy joxe résultat maalakum laa tarjuuna lillahi waqaara te yàlla nee na wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuhu jaam amul doole yàlla rek mu am doole yàlla na boo wakkiloo ci moom dana la dimbali euh, chef de service yi nga xamante ni macha allahu ñoom lañ àndal ginnaaw bi nga xamante ni nuyu nañ monsieur le maire di ko jaajëfal di ko ñaanal liggéeyam yokk euh, di nuyu doomu bi Sane Niang bokkaat ci njaboot bi yor dëkk bi macha allah yor ci ay xarit yu bëri ñu koy ñaanal yàlla gën koo sagal gën koo dimbali waaye loolu tamit lay sant njabootam bi nga xamante ni ñoo teew di dëkk bi taxawaayam rafet lool sëñ Abdou Ngingue li nga xamante ni moom moo jiite maanaam wàllu gàmm sëñ bi nee na mi koy sax sëñ bi nee koy gërëm sëñ bi nee liggéey bi ñuy def ànd naa ak yéene ànd naa ak bëgg-bëgg ànd naa ak te nee na mi ngi sax ci ñi nga xamante ni ñoom la ko seetal ñu ngi leen di seetal ni alalam sax moo ciy dugg waaye doomu Thiénaba Piré mi nii taalibe mi ngi nii ngeen gën koo bàyyi xel bu baax a baax kon ab ñëw bi sant sëriñ bi jot na lool ak équipe bi nga xamante ni sa njaboot la nga ànd ñoom liggéey bu tedd bi macha allah ay at a nii day taxawu gàmm bi. waaye taxawaay bu mucc ay lool njabootu boppam bii sëñ Ibrahima Seck nekkoon taawu sëñ Abdourahim nekkoon xalifa général bu Thiénaba nee na koy sant mi ngi koy gërëm ci ay taxawaayam ci ay ndimbalam macha allahu bàyyi ba di ko Seck teew na fi du sant di ko bu baax a baax a baax waaye li nuyu njabootam bi monsieur le gouverneur ni ci nekk la nga jiite taxaw na ca taxawaay ba rafet macha allah mu mën cee cité rek seen Ibrahima euh, Silla nekk seen canaba jiite wàllu organisation bi ñu ngi sant di ko gërëm di ko nuyu waaye xaaju jugam benn macha allah bi taalibe waaw nekk euh, bu am taxawaay yu ci ëtt bi. sëñ bi mi ngi koy nuyu di ko sant bu baax a baax nga xamante wàllu organisation bi ñëpp xam nañ ni bu àddoo rek macha allah jox na ko yitte Pape Mor Gueye di njabootuk sëriñ bi di ku rafet xel macha allah nekk koo xamante ni du sonn ci liggéeyu canaba sëñ baa ngi koy nuyu di ko gërëm Gora Ndiaye nekk doomu sëriñ bi macha allah am ay yéene ci dëkk bi sëñ baa ngi koy nuyu tamit di ko di ko di ko gërëm jiite wàllu santé bi. Souleymane Gueye jiita wàllu organisation yi jiite daayira yi di organiser cérémonie Thiénaba macha allah ñu ngi koy indil nuyoob sëriñ bi ak cantam alxaaji Bakka Jóob mi nga xam moo jógee ba Ndar ta Ndar gox bii xam nga ñun waa Thiénaba macha allah maam Cheikhu Amadou ñuy nuyu sëñ Alpha bi nga xamante ni moo fi teewal waa Wuramaadi ñun fa lañ jëlee moo waral Thiénaba gi ndax maam Cheikhu Amadou moo woote woon ngir dëggal baatub laa ilaaha illallah ngir mbay njaboot gi jàmm macha allahu ba xeex bi nga xamante ni maam Cheikh Amadou mujj na koo def muy Samba Sadio 1875 euh, boobu la Thiénaba am ngëneel lii mu am te dootul deñ ba mukk yàlla na ci jàmm yàlla na ànd ak jàmm ak sutura ñi ngi koy jagleel nuyoo ah diggante feeg Wuro Maadiyu daanaka njabootu Thiénaba dafa ëppee fii ndax Wuro Maadiyu ak Thiénaba benn liiñ la woon woo xamante ni bëriwuloon ay nit kon ñu gën leen a jàppale ndax seen délégation bi day yaatu lool loolu ñu gën cee bàyyi xel euh, kon alaaji Bakka ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ bi nee na jaajëfal na la fi nga jóge sore na waaye liggéeyu diine moo mel noonu Babacar Ndiaye jiite wàllu ndox mi taxawaayam rafet na sëñ baa ngi koy nuyu di ko ziyaare bu baax ni ko noonu Ibrahima Mbaye jóob macha allah nekk représen représentant Sonacet macha allah sëñ baa ngi koy nuyu di ko gërëm sëñ Mouhamad Seck di doomam am taxawaayu rafet ndax gàmm buñ koy waxee mooy woo njaboot gi ñu fekk si la nga waxtaan ak ñoom xam xamal leen ñoom ñooy kan seen taxawaay ci réew mi xam xamal leen seeni kilifa xamal leen seen borom loolu il faut que ay conférence ak jotaay yu yaatu moo koy accompagner loolu moom moo ko jiite am ci taxawaayu rafet sëñ baa ngi koy nii di ko ci ñaanal ñaan yàlla subhaanahu wa taala lépp yàlla na aw yoon euh, euh, maam baaba mi nga xamante ni mooy organiser wàllum marché euh, marché bi moom tamit am taxawaay sëñ baa ngi koy nuyu ba tamit di ko gërëm mbay kan nga xamante macha allah mooy di di dimbalante ak ñi wàllu sécurité bi noonu lañ koy sante commandant ñu lay ñi ngi santaat ci sa njaboot ñi la nekkal canaba ba fay bi nekk ba taxawaayam rafet na jigéen a sëriñ bi macha allahu loolu ñu ngi la koy seedeel Moussa Ndongo nekk doomi sëriñ bi nekk doomu cana ba am taxawaay lool nekk coordonnateur parti bi maanaam ñu ngi koy nuyu moom tamit macha allah di ko euh, sant bu baax di ko gërëm Euh, délégation Kër Mëgëy ak Cawaare macha allah ak dëkk yi nga xamante ni euh, ñoo wër Canaba ñëw na teew xam ni mbir mi seen mbir la ñoo ko moom ñu ngi leen di sant bu baax nag di leen gërëm bu baax Kër Njaga Saar ak dëkk yi wër Canaba yépp rek euh, li ci des mooy Sëriñ Canaba li mu waxoon ni naa ko jotal tamit nee na mi ngi ñaan yàlla dimbali ñu mi ngi ñaan yàlla dimbali ñu ci événement bi ñu jëm yàlla nag moo am ndimbal waaye ndimbalug jullit day aju ci nan la jàppee ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonant bi mooy làmp bi nga xam ne moo leeral àddina la njëkk yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ci àddina ñëpp xam ne ak nooteel bari woon na nit ñi ci lëndam lan doon dund waaye yonant bi mooy ñëw nekk yërmane yàlla wax ci alquran ni na ngeen ko gëm na ngeen ko dimbali ni falladina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa tabau nuur alladi unzila maahu ulaikumul muflihun képp ku gëm yàlla jàppale yonant bi topp njubam gi yàlla nee na bu sob yàlla de dana say mbir dana ci def tawfiix kon ñi ngi jàpp ni jotaay bii ñu amal fii nii incha allahu fajug aajoon ci lépp a ngi ci suñu borom nag day wax ni bu ngeen ma nangulee rek ma ma seeni mbir i mbir yan tansurullaha woy wa yusabbit aqdaamakum nit nag mën naa lànkal yàlla waaye ak dundam dudul am barke damay faral di wax ni xam-xam wut ko yomb na alal wut ko yomb na waaye bu ànd ak barke na lay doon te bari na ñoo xamante ni ay milliards lañ yor te buñ tëddee di nelaw ndax li ko waral macha allah ñàkk kilifteef moo ko moo ko waral ñàkk nangul yàlla subhanahu wa taala moo ko waral kii di maam Amary Ndaak Seck nag nga xamante ni bokk na ci ñi xeex ba lislaam samp cana ba jàmm am cana Canaba maanaam di yar njaboot gi ci anam gu mucc ayib maam Amary Ndaak moomu mënoon naa woote bisub sàmba Sadio macha allah mu nekk bis boo xam ne bu ko wootee Sénégal yépp danañ ko wuy si waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la tàntal moo tax cana ba guddi gàmm lan am loolu tamit ñu leen ci bàyyiloo xel waaw te canaba fi mu toll nii dafa àgg ci dimension boo xam ni ci ñaari at yi ñetti at yi nii euh, yaatu na yaatuwaay boo xam laaj laaj nañu bàyyiwaat ko xel ci secteur yëpp rek kon loolu euh, monsieur euh, madame le gouverneur nga bàyyi ko xel bu baax a baax ah sëñ canaba nee na njaboot gi nan bàyyiwaat xel seen alal ndax Omar ibnu Xattaab doona wax ni kun kunna adalla ummatin fa aazana allahu bil islaami wa mahmabtaxayna al izzata fi gayrihi azalana allah nit amul lu dul donoom nit lala teddal lala samp lala feeñal na ko jàpp fonk ko saa yoo ko sàgganee moo yow rey nga sa bopp donte sax yaa ngi des di dund kon sëñ ba nee na nani wax wax ju rafet sëriñ ba nee na kilifteef nañ ko yeesal sëriñ ba nee na ku nekk na nga jàpp ni Sénégal gi yow yaa ko war a defar ca na ba nee na nan gën a joxewaat respect macha allahu gën a wegante ci suñu biir wàññi ŋàññante yi wàññi macha allahu yërnoonte yi wàññi jikko yu mel noonu jikko yu mel noonu day dañuy indil ay jafe-jafe rek waaye duñ jural jàmm euh, mag ñi nag lépp lu ñu am bis bi moo leen ko may boo jëlee tarixa yi ci Sénégal yépp ku ci nekk fa nga nekk ba nga fay dew yow kese nga àndal waaye yàlla ànd na ak yow te yàlla ku mu àndal du la gàccaal wa huwa na ayna maa kuntum waaw ba nga fay dem yow kese ak sa sat la nga àndaloon ak yàlla tey foo gis am riir am mbooloo riir jëm fa te kenn du leen financé waaye dañuy dem rek ngir yàlla macha allahu boo xoolee ba xool ni magum lislaam ku gëmoon yàlla moo bàyyi woon lépp ngir ya dimbali yàlla ci diineem ji ngir jëmbali yàlla ci njabootam gi yàlla terale leen lii moo tax ñoom ñëpp boo xoolee yonant bi mooy seen référence yonant bi macha allah mooy seen lépp yonant bi macha allah moom la ñuy dundee mooy ci la tàggat njaboot gi léegi nag gàmmu canaba ñi ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci àgg ak jàmm waaye ñi sëñ bi neen ngeen gën cee jàpp ndax am réew sécurité moo ko yor ak wàllum économie ndaw ñi saa yu ñëwee canaba Serigne ba nga xam ay milliers de personnes ñoo koy wuy si ñu waxtaan ak ñoom ci ñu gën a nangoowaat liggéey ñu waxtaan ak ñoom ci ñu gën a nangoo nangu kilifteef loolu njëriñu réew mi la kon ñu ngi leen ci gën a tàllalaat loxo ngeen gën cee dimbali Serigne ba su ko defee gàmm gi nag euh, ñuy ñaan yàlla rek yàlla nañ ci àgg ak jàmm euh, gi dégg nañ seen i engagement li nga xamante ni tey wax nañ ko fi ñëpp xam nañ ni euh, même bu sottiwul yéene am na fi nga xamante ni fa lañ jëmaat nag muy ca kaw ñi ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci am solution ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di terale ñaan gi euh, sëñ euh, Alpha Ba mu ñaanal njaboot gi macha allah ñu yemale foofu kàddu yi euh, di ñaan yàlla jotaay bi yàlla ba mu nekk sunu mujjug jotaay ku ci nekk la nga bëgg yàlla xam na ko ci sa xol yàlla la ci yàlla jiitu yàlla na ci yàlla dimbali wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yal na ko fi yàlla defal jàmm defal leen fu mbooleem xeetu ngëneel bi jaahi rasulillah yal na yàlla fa suñu ajo yëpp ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya xayral masulin ya mujibu daawatal mutatarrina ya ilahi alalamin bika anzalna hawaijina wa anta alamu biha faqdiha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 fii euh, bu ñu waroon def gàmm bi ëllëg. Hmm. li ngeen fi jot a dégg fii engagement ñu jël euh, xel dal na. waaw euh, xel dal na am nañu yaakaar trop ci engagement yi nga xamante ne autorités jël nañ ko ñu ngi leen di sant autorité responsable yooyu waaye nag di tàmbali suñu kàddu ci nuyu xalif général Thiénaba Baye Assane Seck ah di nuyu aussi le président de la ba Bassirou Diomaye Faye di nuyu son premier ministre. Euh, Ousmane Sonko di nuyu le ministre de l'intérieur euh, le, le Jean-Baptiste Tine mais di nuyu aussi le gouverneur la région des Thiès monsieur Baldé son adjoint également madame Faye le préfet le sous-préfet et euh, le au sous-préfet monsieur Sy qui était venu nous saluons également ah oui oui ñoo ngi itam Euh, ñi nga xamante ni ñooy autorités yi nga xamante ni ñëw nañ jóge ci ay su ay ay de service yi waaye euh, di leen jaajëfal ci taxawaay yi di leen jaajëfal ci engagement yi kenn ku ci nekk nee nga liñ defoon daaw duñ def moyen donc liñ defoon daaw moom assuré wu dinañ ko def loolu déjà dal xel li ci des mooy li ci topp ci par rapport ak euh, changement yi am changement yooyu nag li ko waral mooy <clears throat> dañoo am ay nit ñu population bi augmenté wu nit ñi gën a dëkk si ba a ah, ñu nekk itam ci gàmmu nawet di gën a jige ndox mu bari mi ndax boo septembre début septembre day dafa jige août dafa dafa nekk ci biir nawet <coughs> donc soxla yi ñu daan am su taw amul dara amut léegi si ni day yokk loolu moo tax eh, yaakaar yi ak ñaan ak demande yi ñu gën a bari ci ren jii waaye daan am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ah eh, am nañ tuuti ay eh, xalaat ci côté ndox eh, ndax ndox daaw ba ren ñu ngi koy demandé daaw it amoon nañ ca ay citerne wax dëgg yàlla waaye dañuy gën a bëgg mu yokk ndax ndox day lépp tàmbale woon bi waroon pare daaw sa ñu ne woon ren avant gàmmu nañ ci yaakaar waaw forage boobu jotul la pare c'est vrai que nag tàmbali nañ ko fi mu ne it ñu nga fay gas actuellement nii boo demee gis leen waaye a chaque fois ñu gas demb ay ñaar fukki ñaar téeméeri mètre da ngay gis ni dañuy am empêchement da gis ni dañuy am jafe-jafe pour continuer ñu dem commencé waat à loolu nag problème euh, euh, napp la problème napp boobu nag moo nekk ca moo tax ñaare forage fa nekk matuñu ay deux cent mètres ndox yu doyut te forage yi mën a dépassé deux cent mètres pour le moment dañoo am difficulté pour pour man ko loolu nag moo am moo tax euh, pour le moment daal dañuy jéem a jàpp ci camion yi ñaan mu bëri heureusement que hydraulique dinañ indil ay camions yu dori bëri <clears throat> eh, waa Ofor dinañ ñu indil waa sapeur pompier sapeur pompier dinañ ñu jox ndox non seulement ndoxum naan waaye ndoxum ruissellement yi ci mbedd yi dinañ ko as eh, eaux et forêt aussi am nañu ay camions yoo xam ne ay ay ay oto yoo xamante ne dañuy def ay citerne ñoom dinañu jàppale ci ndox mi et puis ñoom seen jàppale sax mbedd yëpp lañ mën a jaar donc ay oto yu am solo la ñuy jox daaw ah ministre de l'intérieur aussi euh, wutoon na ay camion jox nu finalement daan euh, euh, ndox mi ñu amoon daaw suñ amee luñ ca dolliwaat tuuti rek ah dinañ suñu gàmm dina dox ni mu doxee woon daaw. waaye ngeen ñaax ko commandant gendarmerie ak directeur général douane ñu ne nag taalibe Thiénaba fu ne la ñu bàyyi ko si si. réew si bitim réew. effectivement ñoom ñu ngi leen di demander ñu ñu ñu alléger maanaam ñu def seen liggéey d'accord waaye nag. ñu yombalal ko woyofal woyofal ko ndax taalibe yi eh, mën a agsi normalement woyofal ko ndax pèlerins yi ñi nga xamante ni yor nañ seen i ci war koo indi ci eh, taalibe yi ñu man koo eh, indi mu agsi jàmm ak kon nag yombal boobu daan nañ ko def yombal boobu lañ leen di gën a ñaaxaat ñu gën ko defaat jël nañ nag engagement yi ne contrôle bi dina am d'accord waaye nag dinañ ci gën a def ak yombal ndax autorité yi ne nañ nañ yombal nit ñi ñu mën a ñëw gàmmu si waaw xel dal na vraiment xel dal na euh, ñu ngi sant yàlla di sant bu baax a baax a baax gouverneur bi di sant bu baax a baax euh, autorité yëpp waaye yéen itam waa presse ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal ndax bu du woon yéen suñu kàddu du mën a sori fii rek lay yem waaye yàlla def na président Ndiouga Mbengue rek mooy suñu président voilà ñu ngi kon ba tey euh, ngi ñëw ci suñu comité d' organisation Ndiouga Mbengue ñu ngi koy sant mooy président comité d' organisation bi nga xamante ni mooy commission bi nga xamante ni mooy yore communication a ah, naka moom it yeneen président de commission yi waaye nag ginnaaw nag eh, yéen eh, njuga mbeng ngeen moo leen gën a jige moo leen di jàpp mooy seen njaati ñu ngi jaajëfal njuga mbeng bu baax <laughs> di leen jaajëfal yéen itam eh, di leen doxaat di dox daje ndax le 2 septembre pour set setal bi ñoom ñu ngi ci wo yéen ñëpp ngeen ñëw taxaw ci jàpp ci ndax dañoo nekk ci nawet set setal bu am solo la ñuy def ah bu passé nag buñ gàmm màggalee ba pare ñu leen di joxaat rendez-vous aussi ci réunion nationale bi au ministère de l' intérieur ndax boobu étape des na ca muy étape bu am solo ci suñu gàmmu gi. Ah, Thiénaba TV sunu yëf la kon ñoo koy bokk taxaw. mbokk ngir darey Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga man koy am. شباب ديونه خد الخلب من عهد شباب ديونه